la ñuy tuddee li ngay def fan la ñuy tuddee li ngay def fan la ñuy tuddee li ngay def ndax fan la ñuy fan la ñuy fan la ñuy fay lu gàtt rek dafa doon li ma waxoon peut être ci yenn soirée parce que séminaire bi mu ngi naan mu ngi doon pour assister donc kooku moom sax ci comité préparatoire du séminaire ànd ceeg ay élus ànd ay ay professionnels de l'administration ñoom ñoo def liggéey bépp organisation séminaire yéen seen bopp yéen a ci bokk ànd ceeg formateur yàlla dafa léegi sax fekk na ko ak sama yaram tey ñoo ci fekkee yéen ko wax seen bopp renforcement de ñetti borom xam-xam yoo xam ni kon dama leen xam ci lu bëree bëri bëri bëri ñoom it ñu jël ñëw tënk dara bu dëppoo fi ngeen seetee pour am mën a weccante yéen ñaari fan yi ngeen defe ko fii ci Tëngéej defe ko fii ci seen fan. xam ne dañuy am suñu biir tous les jours ñu ngi jéem a bokk ak nit ñi suñu li ñu xam ci liggéey bi tous les jours boo xoolee baax suñu bureau municipal fukki vétérinaire yi ci nekk il y a un an daaw ñu liggéey ensemble jàng nañ liggéey noo ensemble jàng nañ di bokk noo liggéey loolu loolu ngeen di dund ci biir administration municipale yi loolu ngeen di dund ci biir cabinet bi loolu la formateur yi continuer di ko poursuivre ci biir commission yi di ko poursuivre ci biir conseil municipal bi yéen gis ngeen commission technique liggéey ngeen liggéey ay weer yi yéen di liggéey ensemble ay yéen weer yi yéen ko jëw dafa noo ensemble yéen a indi loolu tey nag ci biir conseil municipal bi loo gis ci activité dimbali nit ñi suñu suñ suñu biir yàlla nañu jàppale ba ñu def ay jéego ci biir incha allahu ay jéego dina am ci biir incha allahu rabbi bés bu yàlla sàkk nañu nekk ci kaw dëkk bi jëm ci jëm ci daal suñu borom indi baaxam ndax maa ngi félicité bu baax Fane Bakis félicité bu baax Amadou Seydina félicité bu baax Sidi Moukhtar ndax ñoom dañu tànn. pour ñu ubbi leen ci ñaari fan luñ ci mën def nga ko ci te xam naa ni soxla su ko wan su ko wane woo xam naa ni dinañ gunge ci juróomi at xam naa ni suñu mënoon gunge ci fukki at yi ñaar fukki at yi dañu ko defal dëkk parce que xam naa ne ay doomu dëkk bi xam naa ne lu bëgg lu bëgg dëkk bi waaw fi ngeen tëjee mooy ñuy wax planification planification école ñaar fukki at ak juróom ma ko yàlla ci ay université ba ak moom mais li ñu ci li ñu ci jub bokk ko kii mën na leen permettre ngeen liggéey moo topp solo ay léegi objectif bi mooy pédologie bi nga xam ne ñun ci loolu lañ ñu fay ñun ñëpp ñu bokk bokk d'accord ci ñu ne dañuy yeesal plan d'action bi comme juróomi at yi di ñëw ñu dëkk juróom commencé ngeen ko ñoom ñu ngi leen di yàlla yàlla def ba loolu buñ ko yóbbu ci conseil municipal bu mën d'accord ne léegi ci juróomi at yii di ñëw action yi da bokk déggee ñun foofu lañ ko def si ndax pour dëkk bu mu soppeeku yàlla mën na ko def te xam ne daal daal dañu jàpp ci kon yéen ñëpp ñu félicité ndax yéen ci guddi taxawaay yéen doon liggéey yéen ñëpp yéen ñuy contribuer ba nekk di contribuer kon yéen Maintenant, avec cette insuffisance, c'est normal. Non, mais c'est à travers les insuffisance. Mais pour tax dañ bañ agir agir mooy suuf devoir ñooñu bu ñu demee ku xool dëgg xam nga dëgg métti na dëgg métti na wante ñun ensemble ñun ñëpp ñun ñëpp nañ joxante loxo jéem a góorgóorlu xeexat li métti ci dëgg bi pour dëgg bi avancer te loolu rek moom solo yéen a ngi ci ñoom consultant yi ñu ngi ci waa dëkk bi ñu ngi ciy xaar même ñi ci mbedd ñi nga xam ne bokkuñ ci conseil municipal yaakaar nañ loolu ci ñun te yàlla dina ko def incha allahu rabbi Tëngéej dina def ay jéego Tëngéej mënu bañ a def ay jéego dina ko def ak waa doomu Tëngéej dina ko def ak état dina ko def ak commune dina ko def ak ñëpp ñëpp dañ ci ànd loolu lañ leen di woo waa Tëngéej yéen a ngi ci yéen conseil yéen a ngi ci formateur yi ngi ci ma leen di encouragé di leen wax ni fa ngeen ko fi ngeen def seen daan bëgg naa ci ànd ak yéen leen di félicité li ngeen may ñaanal loolu laa leen di ñaanal loolu la ñuy ñaanal waa dëkk bépp nañ ci ànd ak ensemble pour góorlu ba yàlla may ñu benn plan d'action prioritaire boo xam ni dina réaliste dina réalisable te te ci pandaw ba dinañ ni lañ ci du lañ ci ñun ñëw ñëpp suñu borom may nañu kàttan ak doole ba ñu jëfe loolu yàlla ko yàlla ko yàlla def maa ngi leen di encouragé yi def di leen félicité di leen ñaanal yàlla di leen wax boo ko defee dañuy continuer à Sidé pour accéder à Fadi pour accéder et à Amadou Seyni. Et à vous tous, et au comité préparatoire, au comité préparatoire, au conseil municipal à la République. balaa ñuy dégg wala ñu fi gën a ñaan ñaan bi dina ci am solo moo tax activité politique tout le temps dañu mën a dañu mën a wax defar on a defar ndànk ci defar bu leen mënul tax suñu bopp ci mbaaxam ci ndimbal seen yéene bu tolloo fenn bu ngeen ñaanalee yàlla mën na def mbir yoon bi dëgg dëgg daaw man boobu dëgg yenn saa yi ñu def moom nag loo xam duñ ci xam dara xamuñu dara ñun ñëpp ku ne am loo xam ki nga foog di xamul xam na lu bëree bëree bëree bëri donc docteur la ñu ñu bëri xamoo am na yoo xam ne sama fi ko ci yóbbu mais da ngay ba ci biir suñu borom ci boppam leeral man moo wax moo jaaxle sax lu tax suñu borom dajale nit ñi kon suñu borom da ngay yéene war bi moo tax nañu ñaan ñaan bu sincère nañu ñaan pour que seen usine change yàlla mën na ko def dafa def mission boo xam ne nañ ko ñaan nañ ko jàmm nañ ko gëm ba doon pour que seen usine change dafa am lu loolu dafa ci di jeex ku ci nekk am na lu xam ay ñu am na lu xam kii am na lu xam ku ne am na lu xam te dem mu am école sax par son vécu ku ne tellement de choses nañu jéem mobiliser bu baax ci ñun ñëpp talal suñu loxo suñu borom nekk su moo doon dawar yow lañ nga gunge nga leeral nga génne ñu pousse ñu di béy bu sax yàlla dafa def incha allah yàlla na ko yàlla def waaw. maa ngi doon xamal imam yow Pape Seck mu ñaanal ñu ñëpp.